salaamaaleykum waa Koungheul waa département Koungheul waa commune Koungheul sax mën nañ ko wax parce que tey fi ñu nekk nii ñi ñu fi invité moom mooy waa cellule com bu Mayacine Camara nekk candidat benn bokk yaakaar fii ci commune bu Koungheul lan moo tax ñu war a fii ñëw nag comme ni ñu ko defee woon ak yeneen i parti ñoom tey dañoo ñëw pour wan ñi kan mooy seen candidat jaar-jaaru candidat bi mais li ci gën am solo programme mais jël ay témoignages yu xam ne ay nit yu xam ne jot nañu liggéey ak Mayacine nekk ci ruq bi am na lu ñu wax ñëw war nañ ko mën a déglu fii tey après pare ñu jàngat ko buñ ci pare ñi xam ne ñooy solil comme bi am na ñu ñu envoyé ñoo xam ne ñoo war a toog nii sama ginnaaw war a waxtaan ak presse locale bi danañ ko woon askan bi pour tout simplement loolu yëpp bokk ci biir campagne électorale bi ngeen topp ñu rek euh, ñuy tegal leen li xam ne moom mooy documentaire bi xam ne Koungheul waay yi wax nañ ko ci teewaayu soxna yi toog nekk ñu xam ne tey ñu ngi ci biir Maya euh, di liggéey Maya je crois que maa ngi gis ñu ngi bind Maya sama mère ñoom day tuuti ñoom anca euh, yëpp ànd ci côté bi itam ñu ngi gis les musokendo xam naa musokendo ci kaw dina si ñëw léegi expliqué mu lan lay ñu ngi toog nekkoon ci campagne bi mais ñoom ñëpp tey ñoo toog ànd ak cellule comme bu Maya Sine Camara am lu ñuy présenté kon paree ñu tàllal suñu micro ñi xam ne tey ñoo fi teewal cellule comme bi ñu waxtaan ak yéen ci kan mooy Maya Sine Camara lan la fi def ak

d'accompagner un homme, une référence, un digne fils de Kungel, un économiste avéré, un homme qui a osé du non au moment où ses pères ont coupé le dos et accepté en silence un sort qui les brille. Le ministre, secrétaire d'État, l'homme du PSE, maire de notre chère ville de Kungel et candidat à sa propre succession, je veux nommer Mayassine Kamara. Mayassine Kamara ci boppam. suma témoignage ak moom dana yomb parce que tout petit suñ équipe pédagogique bi ñu amoon école boobu monsieur Ndaw bien nag moom bu yàgg la ñu ne xale bii ngeen di gis bu soobee yàlla dana nekk dara tout petit il a fait des merveilles à l'école ici ci mën a jàng di jël premier gën fa tuuti waaye yàlla def ci moom loo xam ne ñun on avait déjà prédit que Mayacine dina nekk quelque ministre Mayacine maire Koungheul euh, ñun bi li ñu ciy wax tamit dañuy wax rek suñu diggante ak yàlla Mayacine ñun ñoo foondoo en cas bu ñuy magante tamit du bëri ñu doon ànd di football ba léegi liñ xam ci moom mooy nit ko dal la ci njëlbeenam ku am yar ku am teggi xamewuñ ko benn mbóosóor xamewuñ ko benn histoire mu xeex ba yàlla may ko lii mu ko am tey. que wax dëgg yàlla moom waaju baax la man da wax dëgg yàlla man da moom laa àndal man anam jur. yéen ko am te xamuñ ko benn mboosoon xamuñ ko benn histoire sa xeex

maire ak les Moussokendo Modou Diouf kon kàddu gaa ngi nga wax ñu tuuti. Euh, ñu ngi nuyu mbokk internet yëpp di nuyu waa Koungheul le Koungheul waa de Koungheul et la diaspora comme dëkk bi yëpp euh, di am lu ñuy leeral après nuyoo yi leeral bi day dem ci ay félicitations wala bokk wax dëgg yàlla ay ngërmande ci wolof ci cellule de comme bi parce que man en réalité. mun nañ ma bañ a compter ci cellule de com bi mais moi je suis conseiller municipal je représente actuellement le conseil ainsi que euh, madame Khady Ndiaye bi nga xam ne mu ngi madame Loum bi nga xam ne mu ngi fi moom tamit conseillère la euh, dañuy représenter conseil bi actuellement fii bien que ñu ngi doon bàyyi xel liggéeyu comité euh, liggéeyu cellule de communication bi mais lii xew nii tey c'est une euh, grande première mu ñu ngi koy doog a gis ci cellule de communication benn njiit benn leader boo xamante ni wax dëgg yàlla mu ngi en fin de campagne donc c'est juste pour dire aux gens montrer aux gens que nous avons une équipe te loolu bu ñu ko waxee du ñu ñàkk gërëm euh, le grand bi bi ñu toog suñu grand bi toog xëfër nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci monde bi euh, muy liggéey ci wàllu communication nekkoon fi manager Omar Pène après mu dem continuer liggéeyam léegi mu yor ay boîte boppam bàyyi liggéeyam ak yëpp pour représenter les Congolais de la diaspora ci élection yii nii ñu nekk indi son expertise ak aussi euh, matériel am ak moyen financier am pour jàpp ci élection yi donc loolu day wane ni am na ñu nekk ci ginnaaw euh, xalaat bi ak doxalin bi ainsi que doxalin bi nag suñ ko xoolee c'est très simple Matar résumé nga ko euh, c'est les réalisation les réalisations yëpp mënuñ ko visionner mënuñ ko commander parce que dafa bëri mais quand même en résumé dañu ciy jël tuuti jukki ko waaye ay témoignage ñi nga xam ne ñoo ñu gën a xam Mayacine gën ñu xam historique gu dëkk bi ñu def seen ay seen ay témoignage mais li ci am li ci bees mooy réalisation yi nit mun na taxaw di wax mais vidéo bi lépp lu ñu wax ci wàllu réalisation daf koy visionné nga xam ne lu mën a teg bët la boo déplacé ba foofu nga teg sa loxo donc euh, merci beaucoup en guise de d'introduction loolu lañ doon loolu lañu doon nuyoo euh, di gërëm aussi suñu euh, soxna yu yaa ngi ñii sama côté càmmoñ ñoom ñooy les Musukendo yaa ngi ma doon wax sànq ma présenté ko euh, Musukendo lu li li ko li ko li ko li ko sabab dañu seetlu ne dañu xaw a manqué leadership féminine actuellement on tend vers ce qu'on dit euh, égalité parité et cetera te loolu bu ñu koy wax te suñu jigéen ñi euh, dugguñ ci mouvement associatif yi dugguñ ci mouvement politique yi yëngatuwuñ ba mën a am expérience pratique wala boog. boolewuñ leen ba ñu mën a comprendre ëllëg du ñu am suffisamment de de de de leaders wala de responsables jeunes yoo xam ne ñooy assurer la relève parce que léegi ñu ngi wax parité manqué na mais bu ñu demee ba si kanam les Congolois vont voir que on a formé le Mayacine Camara et son équipe a formé des jeunes yoo xam ne ëllëg ñoom ñooy porter non seulement leadership féminin wu dëkk bi mais bu bu Sénégal yëpp loolu mooy musu kendo def def def résumé ci euh, programme Mayacine dina yomb. ndax dañuy wax dafa am lu ñuy wax gouvernance gouvernance li ñu njëkk a def moomale delloo askan bi li nga xam ne ñoom ñoo ko moom mooy créer ay pénc grand bien que peut-être appropriation bi au sein de certains quartiers desoon na euh, mun nañ nañ ci bañ a xó mun nañ ci bañ a xóotal lan mooy problème yi mais yooyu yëpp étudier nañ ko xam nañ lan mooy rëq-rëq yi on temps vers reprendre loolu parce que ci quartier yi loolu ci gouvernance la bokk dafay tax bu ñu def DOB euh, débat d'orientation budgétaire askan bi toog wax li am jafe-jafe seen koñ wax lan mooy problème yi ñu xam bu ñu ñëwee ci mairie ñu projet ko wala ñu indi document bi ñu xam ne quartier sangam quartier sangam quartier sangam ñi nga xam ne ñoom ñooy de la commune lii mooy seen ay besoin ñu méngale ko nag ak am amu am amu am amu commune bi ak mën-mën bi li ci mën a nekk ñu def ko li ci mënul nekk prochain budget ñu def ko loolu mooy première chose bi nga xam ne defoon defoon defoon defoon nañ ko ci wàllu ci wàllu gouvernance mais aussi euh, ñuy wax ne créé nañ yeneen yeneen quartier te loolu lu am solo la dëkk bi dafa demoon ba rëy huit quartiers la amoon ci li nga xam ne mooy suñu possibilité on voulait même faire trois quartiers mais euh, loi bi ñu ko ñooñu yokk yeneen ñaari quartier loolu tamit ci gouvernance la bokk te lu am solo la mun nañ ñëw si ci njeexital yi mun a indi euh, ci koñ yi ndax bu fekkee benn délégué de quartier dem na ba dëkk bi ëpp ko doole du mun a recouvrer impôts yi du mun a xam jafe yi du mun a dem fépp il faut que ñu yaatal ko pour quartier bu nekk gën a jege euh, délégué de quartier am loolu ci gouvernance bi la bokk mais ku dem mairie aussi gis ne réhabilité nañ ko loolu ci gouvernance la bokk fa ngay liggéeyee nga fexe ba ku fa ñëw respecté la vraiment ci suñu ci suñu gouvernance gouvernance la bokk ak yeneen yi nga xam ne euh, ci biir gouvernance ci biir gouvernance la mais ñu tënk ci loolu waaye dëkk bi ñuy ñëw daf fekkoon mu am ay jafe-jafe jafe-jafe éclairage public mais aussi extension réseau bi euh, ñu fi amoon courant dëkk bi daanaka bëriwul mais ci boobu ak léegi fexe nañ ba fu quartier am ñu yóbbu fa courant fu quartier am ñu taal fa ay lamp loolu aussi si ay réalisation Mayacine la ba ci sax lampadaire yi nga xamante nii on on attendait euh, quatre cent lampadaires parce que il est ministre euh, actuellement euh, ñu am deux cent on attend les deux cent yi des pour complète compléter ko loolu mooy côté côté éclairage y au moins minimum trente deux kilomètres d' extension d' électricité yóbbu nañ courant bi ba ci gétt yi ba ci àll yi bien que am na ay poches yu des te ku ne xam ne ni ñu ngi ci actuellement si budget bi ñu bi ñu dëgmal instru instruire nañ ci wala insérer nañ ci li nga xam ne mooy compléter éclairage public bi la nag du du musa doy nag ndax dëkk bi dafay dafay yokk ndax les gens dañu préférer être riche être pauvre en ville que être riche au village mu nangu leen ko nag wax dëgg yàlla loolu moo rek moo waral création quartier mais di ci jàppale aussi que bu jàppalewul tamit dañuy am jafe loolu mooy côté euh, éclairage public santé et action sociale santé euh, ci nguur Mayacine la sentir ni dëkk bi dafa yokk hôpital bi ñu amoon mënatul dékku ñuy jógee ba Touba Koungheul ba jàmm gën 2 ba feneen ba feneen bien que euh, amoon nañ poste urbain 1 mais amuloon maternité ñu tabax fa maternité poste urbain 1 pour jigéen ñi nga xam ne dañuy matu matu dafa gaaw balaa ngay traversé dëkk bi di dem boobu dëkk bi nii la guddee woon balaa ngay traversé fii di dem day am jafe-jafe ñuy am ay cas si yoon bi yu am ay jafe-jafe ay complications ñu gis ko si conseil municipal bi tabax maternité prioriser ko euh, ci benn année bi ci topp ñu tabax poste de santé Touba Koungheul bi nga xam ne moom moo fa nekk mairie bi moo ko tabax moom moo moom moo ko fa def waaye ñu gis ne loolu yëpp baax na mais comme dëkk bi dafa dafa ëmb lu ñuy wax ay vingt et quelques euh, postes de santé ci yeneen yeneen gox goxaat yi te yëpp fii la ñuy fii la ñuy référé ñuy am problème toujours mortal taux de mortalité maternelle bu bëri mu ne te loolu li ci ëpp solo ñu ñu baal ma ñu ñaa ñu ñaanalaale ko dafa am jigéen bu ko doon jàppale 2009 ñu koy wax euh, Mboy Ndaw nekk doomu Pian doomu monsieur Ndaw mu ñu doon jàppale si élection yi sonnoon ci loolu ñàkk bakkanam ci loolu loolu inspiré ko mu créé li ñuy wax benn centre boo xamante ni euh, moom la ñuy dalal jigéen ñi nga xam ne dañu dañu ëmb am ay complications mais lii l'idée c'est dalal leen fa durant seen grossesse ñu am fa ay logement ay chambre yoo xamante ni dañ fay dëkk nekk fa ñu leen di toppatoo di leen seet gratuitement loolu moo ci loolu moo ci bees loolu moo tax sama xaw a yéex ndax mën naa dugg un peu ci stratégie yu ñu war a yu ñu war a dérouler yu ñu war a dérouler pour doxal ko dañuy parrainer les chambres par exemple mën nañ parrainer les sénégalais les Kounguelwa de de la diaspora benn chambre ñu jël ko en charge toute une parce que association lañu yor am nañ les moyens mun nañ uti moyens yi et cetera benn ambassade am na ambassade ambassadeur yu yu ambassadrice bu annoncé wu bu nga xam ne nar na jël benn on va noonu la ñuy def ba chambre yëpp am ay parrain nga xam ne nañ am suffisamment de ressources pour gérer ça parce que ku wax gratuité gratuité dafa dafa métti te te yàgg at dafa at dafa bëri loolu mooy côté centre bi centre boobu ñu ciy gërëm aussi suñu partenaire yi parce que ñun mairie bi les ressources sont limitées mmh. donc mënuñ def dara sans partenariat ñu ciy gërëm suñu partenaires yooyu COSA nga xam ne ñu ngi ko tuddee centre euh, aminte Kunta et et cetera loolu mooy santé action sociale euh, loolu duñ ci sori parce que le maire n'a jamais voulu communiquer sur les actions qu'il qu'il mène en social socialement li muy def bëggul ñu communiquer si parce que nee na nit munoo ko dimbale ba pare di koy weer di koy di koy weer donc loolu def nañ ci lu bëri mun nañ ci rek citer ay ay exemple ci école yi am na ñoo xamante ni seen yaay yi dafa dafa wàññeeku wala seen waajur yi dañoo néew doole moom moo leen jël en charge personnellement di leen fayal njàng wala di leen jëndal ay fourniture fourniture di leen inscrire ainsi de suite ainsi de suite action sociale mun na dem ba université c'est bien que c'est dans le dans dans dans l'éducation mais moom personnellement euh, dafay fay chaque année deux appartements yoo xam ne socialement la koy def ñu fay dëkk xamuñ ko xamu leen mais li mu gëm mooy les gens dinañ ci ñëw si côté bu ñu yeggee si euh, éducation li mu gëm mooy il faut que ñu jàppale askan bi ñi nga xam dañu néew doole bu ñu demee pauvreté wala ñàkk bañ a tax ñu dellu si seen seen seen seen seen seen dëkk. waaye hydraulique loolu dañ ci wax tamit lu am solo bi ñu ñëw si dëkk bi dañ fekk benn forage boo xam ne cinquante et quelques mètres cubes c' était pas suffisant parce que moom la ñu fekkoon mu yàgg fi euh, problème ndox yi ñu doon wax yëpp c' était parce que doyul. Mmh. mënul couvrir dëkk bi. ñu ñu ñu ñu ñu fekk ko mu mel noonu non seulement doyul mais mu am xet am cafka am couleur les gens ne me laisseront pas mentir Koungheul koo xam-xam ne bu njëkk ma sax naan waaye faute rek boo ko defee yére bu weex mu yàqu oh mu mu mu combattre ci ja ñafe ci ñafe ci ñafe ci ñafe ci ba ñu dem am deuxième deuxième forage peut-être loolu laay tooñee Aziz parce que moom laa ko naan yow li tax ñu lay tolérer toujours mooy ce bi muy nekk PDS moo dimbaloon ma seen Omar Sarr à l'époque ba dimbale ko ci forage ndax opposant opposition opposition la ñu woon nekkoon ay opposant la mais dimbale na ko ba ñu am deuxième forage bi mu yokk quantité ndox bi mais mu tabax usine euh, de ferrisation usine usine bi nga xam ne moom mooy dindi fer bi euh, setal ndox mi génne cafka bi génnee xet bi ba mu mel ni eau minérale ba nit ñi mun ko jëfandikoo donc loolu aussi lu am solo la si wàllu si wàllu si wàllu hydraulique mais ñu ne loolu doyul actuellement gas nañ benn troisième forage boo xam ne c' est deux cent mètres cubes heure cela veut dire que Koungheul actuellement problème mu ndoxam fii ak trente ans réglé nañ ko actuellement defoon nañ appel d'offre bi euh, usine bi gagné ne ko ba indi nañ matériel yi moom ñu ngi koy raccordé te li ci bees ci usine boobu mooy si toutefois que suñu usine bu mag bi nii panne euh, grand xëf mm-hmm. ndox boobu dañ ko recherché eau de source la boobu amul fer amul xet amul cafka amul couleur day dañ koy connecté directement si réseau bi mu dem kenn du ko kenn du ko tere du jaar si usine bi cest à ndox bi bu doon coûter nit ñi lu cher ndax usine bi dafa usine bi dafa am fonctionnement dafa am coût ci fonctionnement bi ndox boobu dañ koy extraire directement filtrer ko mu dem ci mu dem ci mu dem ci mu dem ci askan bi donc ngay gis ne hydraulique euh, ci ci base bi wàllu production liggéey nañ si ñaari forage liggéey ci usine déferrisation mais ñu def extension do ku ne xam na ne dëkk dafa am ay quartier périphérique wax naa ko sànq les gens dañu bëgg ñëw dëkk si ville bi même bu ñuy sonn que ñu dëkk si àll bi mm-hmm. te nag ay jafe-jafe yu bëri la ndax ay fàkk dëkk lay doon léeg-léeg duñu sax am am am am sañ-sañu dëkk waaye bu ñu fa xasee dëkk le maire a l'obligation mu dimbale mu dimbale leen utal leen utal leen ndox ñu def ñu njëkk a def vingt sept vingt sept kilomètres extension d'eau mais plus ay addition addition addition yoo xam ne addition sociaux la mooy mooy mooy branchement sociaux loolu liggéey nañ ko euh, ci lim boo xamante ni man lot naa sax di ko di ko di ko di ko tudd parce que Koungheul pour nga branché fi ndox normalement c' est trois cent et quelques mille. donc loolu su amee bo te lijjanti loolu leen branchement sociaux mën naa ne xëy na di nga leen tàllaloo tuyoo seen buntu kër te ndox mi du dugg si biir. Euh, plus les bornes fontaines yi nga xamante ni def nañ ko su def nañ ko si si si si quartier yi donc ndox loolu lañ ci liggéey liggéey bu am solo ci wàllu branchement récemment nii rek. on vient de de de euh, euh, enterrer wala boog terre cinq kilomètres yu bees pareegul am na ay quelques tuyaux yu des parce que l'entrepreneur et la ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy toujours sur quartier périphérique yi wala yenn poches yi nga xamante ni amul te ndox nag dafa vital. Mhm. loolu nag li tax communiqué communiqué wuñ si maire dafa gëm ne euh, maire bu mënul yóbbul courant nit mënoo ko yóbbul ndox maire boobu dafa fayal mission mhm. moo tax effort yi ñu si def yëpp. ñu ko ci def malgré les les les les les les moyens yi nga xamante ni am am nañ am nañ ko donc euh, ñu jëm ci wàllu culture culture ku ne xam ne ne chaque année wala chaque deux ans ñu def benn journée culturelle boo xam ne euh, loolu nag nañ ci taxaw parce que culture dafa am njeexital bu mu am ci askanam Koungheul brassage culturel bi c'est douze ethnies différentes su ma ko waxee nit ñi duñ comprendre fukki fukki xeet yu wutee ñoo nekk Koungheul douze ethnies ñooñu bu ñuy fësal seen aada ak seen cosaan day tax seen aada ak seen cosaan du leen du leen du leen réer te Sénégal bu perte aadam ak cosaanam nekkatul Sénégal bien que mun nañ dem vers modernité mun nañ ci góorgóorlu mais day baax suñu faju maam yi ñi nga xam ne loolu lañ daan fajee suñu aada maam yi nga xam ne moom lañ daan def mu jig leen ñu wér ñu ñu ñu ñu gëm seen bopp di gëm seen dignité ah gëm seen honneur di sàmm seen ngor di sàmm seen jom ñu leen koy jàngal ci culture yooyu parce que manifestation culturelle yooyu loolu la. wan seet ak détail yooyu yëpp geste bu ñu def da nga yaakaar ne dafa mystique mais no dañu lay jàngal yow naka nga war a dundee naka nga war a def ëllëg loolu moo tax suñu doing together bi ni ñuy defa defandoor bi ñuy def ñun mm. ñun en tant que sénégalais mu jaaxal tubaab bi te loolu dafa bokkoon ci suñu partenariat ak Fontenay-sous-Bois moo tax heure bu ñuy def euh, activité boobu ñoom dañuy déplacé wu ñëw covid bi moo tax l'année surpassée defuñu ko mais sinon dañ koy def chaque deux ans dajale it yëpp ku nekk wane sa aada ak sa cosaan euh, nit ñi génnee li nekk seen xol ñëpp nekk benn Koungheul mën a mën a mën a jëm kanam si loolu ñu ngi moom loolu moo tax mu ngi tabax li ñuy wax centre culturel fi foyer bi nekkoon actuellement dañ koy tabax centre culturel boo xam ne équipe ko de telle sorte que de delà des cultures ñi nga xam ne ay cosaan la mais moderne ñi nga xam dañu moderne les rappeurs les chanteuses les centeurs les musiciens et cetera dañu am foo xam ne fay dem di produire di tàggatu mu mën a tamit génne ay Youssou Ndour Koungheul parce que dëkk boo dem kër yoo dem am nañu nii luñ gëm kii dafa bëgg lii kële bëgg la ku si nekk li mu bëgg da nga ko ciy fekk jàppale ko te bu bu ñu amee artistes yu siiw ay rappeurs yu siiw day day day day day day day yóbbu turu dëkk bi fu sori te turu dëkk nu mu gën a soree turu dëkk nu mu gën a soree affaire yi di gën a baax loolu mooy attractivité wu dëkk bi dëkk bi nu mu gën a siiwee foo koy jaay muy am code xam naa grand bi xam ne li may wax da ngay am code sur le plan international ñu koy côté euh, si si si dimension bu bu bu bu bu bu kawe donc loolu culture mun na ko mun na ko mun na ko indi donc suñ jógee si si tabax boobu mun nañ dem ci assainissement assainissement nag loolu moo tax ñu ne ñun Mayacine duñ ko wéccoo ak kenn parce que ku tëgg plan Sénégal émergent wala bokk mu bokk si ñi ko tëgg pour bañ a exagérer dem groupe consultatif jongan jongante jaay dessiné bi présenter le projet am objectif des milliards mu dem presque double la double pour Sénégal fii Koungheul gisuma keneen ku nga xam ne am na dayo boobu loolu xam-xam boobu bu ko defoon foofu te def ko Koungheul dañu ne kii dafa dafa dafa dafa añaan wala dafa soxor teg si récemment mu finir li ñuy wax le politique ferroviaire bi nga xam ne vraiment adduna bi yëpp nee nañ gong tout les partenaires convergent vers Sénégal pour financer activité ndax dafa définir l'axe central bi de Dakar à la euh, wane lan la war a liggéey lan la war a produire lan mooy njëriñ li ci wàllu transport de masse gaawaay bi a kii bu bëri grand bi am na une partie logistique lay def xam ne li ñuy wax transport de masse loo waroon loo waroon transporter si benn durée de cinq jours nga def ko si benn fan wala ñaari fan mais boo waroon transporter aussi dix tonnes nga transporter mille tonnes day tax économie bi gën a gaaw mu décongestionner port bi impact boobu muy am dafay feeñ feeñ feeñ feeñ si presque secteur yëpp ci wàllu wàllu wàllu santé wàllu éducation wàllu culture yëpp dafa ci impacte parce que boo dé bu décongestionnement amee rek day réew mi day soufflé bu réew mi soufflé réew mi day wér day am day am day am cawarte réew mi day sawar day dëgër day dox dox boo xam ne léegi dëkk bi développé loolu bi paree ci diggante boobu mu tëgg projet bi le le plan là qui qui l'a fait Ziguinchor Dakar Saint-Louis Dakar Kaolack peut-être Dakar quand je dis Dakar mooy connexion bi c'est c'est fu mu dool rek fa la koy connecté donc loolu Matar c'est très important pour ñun parce que boo amee sa doomu dëkk mu dëkk dëkk boo xamante ni raay bi fa la jaar ñu jox ko raay bi mu liggéey ci loolu ba canadiens yi ñëw jël le projet nangu ko financé écartement standard deux voies maanaam autoroute la ñuy def raay bi de Dakar à Kidira def ko écartement standard mooy raay yi nga xam ne moom mucc ay méngoog jamono pour pour dootu am ay déraillement marché dina gën a daw bu gaaw mais dina gën a yëpp lu diis te du ga te du gaaw am problème loolu plan boobu moom moo ko waral bu yemoon si loolu te digg liggéeyu ko ci dëkk bi ñun dinañ ko mere mais bi mu ñëwee bi mu ñëwee li mu def mooy def lu ñuy wax plan de développement communal mooy dëkk bi ñun bi ñu ko hérité fekkuñ fi kayitu judd cest à kenn xamul fan ngay intervenir santé looy def fu mu toll lii looy def fu mu toll mais loolu il fallait mu ñu travailler ci li ñuy wax plan de développement communal boo xam ne da ñëw xam lan nga war a def tey lan nga war a def suba secteur bi lii moo fi manque et cetera plan boobu mucc ayib bi mu paree plan bi li si njëkkoon génn mooy assainissement bi nga xam ne si laa toll actuellement gis ngeen ko c'était un milliard et quelque. su ma juumul mu jël ay mu am ay ponkal yoo xam bi ñu liiree projet bi dañ doon daw pour financer ko banque mondiale du caaxaan union européenne du caaxaan fonds Suez du caaxaan mais mu dénk ko benn groupe bu mag bu ñuy wax Eaux Vives en partenariat avec la commune parce que nee moom liggéey xam-xam bi lay joxe mais du piloté da koy jox benn privé mu mu mu mu mu mu mu nekk digganteem ak partenaire yi. loolu moo indi woon sareet yi ngeen doon gis fii poubelles yi ngeen doon gis fii à bas prix création comité de quartier yi pour dëkk bi mën a set. lu mu lu ay wax wax wax dina wax xam ne Koungheul vraiment jël na en charge salubrité beneen bi mooy éducation foofu ma taat dinañ fa taxaw tuuti. éducation le maire la mairie ou le maire dafa def ba romb ay compétence am ndax ku xam-xam ne mairie li ñu ko dénk mooy tout tànk yi mooy euh, école élémentaire mooy yi nga xam école 1 école 2 école trois école 4 école 5 loolu li mu si njëkk a def mooy créer école 6 école 7 dëgg la wala dëgg créer école 6 école 7 loolu lu am solo la si moom ba pare tabax ay salle de classe ci école yi mu fekkoon pour que ñu gën a mën a dékku élèves yi fi nekk élèves yi jàng dans les très bonnes conditions te loolu dinaa si ñëw élèves yi jàng dans les très bonnes conditions mais aussi euh, mu jàppale leen si ay table banc waaye li ci ëpp solo si loolu mooy taxawaay bi li jur euh, grand ren j'avoue que Sénégal la région de Kaffrine ak région de Ziguinchor ñoo jël P ak 2 ci entrée en mooy suñu compétence ñun. Koungheul ak Ziguinchor ñooy pré ak deux Ziguinchor mooy pré Koungheul mooy deux te si on parle de Koungheul bon Kaffrine la ñuy wax région de Kaffrine. Mm. Koungheul du région mais su lu tax ma wax Koungheul j'ai fait ndax suñu wax Kaffrine c'est parce que commune de Koungheul ak commune de Uram Ida Mouride ñoom ñoo jiitu. loolu moo tax liggéey bi ñu doon liggéey ci benn durée sept ans loolu la feeñ loolu la loolu la wane loolu mooy vision di def loo xam ne dañ ñii li muy def lu muy njëriñ mais njeexital bi li mu indi mooy ren. Sénégal yëpp wërngal këpp suñu région moo jël deuxième ci wàllu entrant entrant sixième loolu li ko waral mooy gëm-gëm bi nga xam ne Mayacine dafa gëm éducation xam ne il faut que ñu produire ñu produire ay nit il faut que ñu produire ay ay ndaw yoo xam ne dañuy am xam-xam dañuy wér dañuy mën a préparer seen bopp ngir ëllëg sàkket yi fi nekk wala yoon yi fi nekk wala bâtiment yi fi nekk ñoom ñu mën a am ay emploi décent ñoom ay ingénieur ay magistrat ay professeur ñu mun a ñëw ñoo xam ñooy ñëw vraiment seen benn salaire mën a régler problème ba at mi jeex loolu mooy loolu mooy loolu mooy li ñu leen mënoon junj ci éducation. li jëm ci wàllu jeunesse ñun bi ñuy ñëw ci commune bi dañu fekk hérité wuñ benn dossier mooy comme foncier bi comme yeneen donc peut-être tëb naa yu bëri mais en résumé li ma mun a wax mooy dañu ñëw créer benn agenda boo xam ne dañuy identifier lépp luy jafe-jafe jeunesse bi lépp luy seen problème ñu ñëw jébbal ko le maire. loolu moo tax actuellement amuñu problème lan la war a def peut-être les c'est les moyens qui qui nous manquent te mu ngi ciy góorgóorlu problème emploi problème matériel ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci yenn yenn yenn yenn yenn yenn artisans yi wala yenn yenn places yi yenn métiers yi jeunesse boobu l'inspiration boobu jafe-jafe boobu moo tax peut-être le conseil départemental avec en collaboration avec la mairie góorgóorlu bañ am fi centre de formation même bu fekkee projet état la mais góorgóorlu bañ am fi ay institutions financières yoo xam ne dañuy financer ndaw ñuy létt ndaw ñi am ay mécaniciens ay menuisiers mën a am matériel boo xam ne dañuy mën a compétitive di compétir ci li ñuy wax ay euh, marché nationale bi di di tëgg walla di defar lu ay bagage qualité yoo xamante ni ndaw ñi ñoom lañ ci ñoom lañ ci yaakaar donc loolu mooy li ñu liggéey ci wàllu jeunesse sport euh, bi ñuy ñëw ci dëkk bi dañu fekkoon stade bi am problème projet bi nekkoon na en cours mais contrepartie bi ñu waroon versé existé wutoon ci mairie bi ndax dañ fa fekk boru courant boru ndox boru ay euh, contrepartie yu ñu war a fay ci ci ci ci ay ADM ak et cetera. Mm-hmm. mais loolu li tax ñu munoon ko régler ci première année bi mooy le maire dafa takk biiram lépp lu nga xam ne ay dépenses de fonctionnement la ñu wàññi ko mais ñoŋal li ñuy wax ay dépenses d'investissement ba ñu mën a produire xaalis boo xam ne dañuy mën a fay contrepartie yooyu mën a doxal projet yi mën a fay courant bi. mun a fay ndox yi mën a fay euh, contrepartie yi si si stade bi ba stade bi mën a taxaw nit ñi loolu lañ comprendre si stade bi ce que le maire a pour le stade c'est compliqué mënuñ ko wax si micro parce que dafa am entrepreneur bu ko ñëw gagné mu am jafe-jafe mu dem jaar fi mu war a jaar ba mu so ba mu sotti ci loolu ñu ne ku ngeen toll na ci war a am projecteur on a fait le nécessaire engagé ko benn li ñuy wax euh, entrepreneur ñi ko war a fay ak état bi nga xam ne ñoom ñoo ko war a fay souvent bu yéexee foofu bu amee jafe-jafe dafay répercuté sur le maire mais tout ce qu'il devait faire pour stade bi def na ko waaye li yàlla di wax yàlla mu bëri sutura tey jii monté nañ projecteurs yi tey ba fali laay xam kenn dootul waxati dara léegi nag li ci des mooy def fa pelouse mu ngi si ñu ngi gas beneen forage foofu après pour def ko pelouse non seulement du nekk synthétique mais pelouse naturelle lay doon boo xam ne Sénégal ci dëkk yu am euh, dina dina néew parce que yëpp pare yëpp yëpp yemb na sport bi li ñu bëgg Matar commencé nañ ko ak par ak partenaire en partenariat avec le conseil départemental koñ bu nekk ñu dafa benn mini terrain basket ndax le maire li mu seetlu mooy am nañ ay ndaw ñu am jëmm am taxawaay am kattan ba pare nekk ñu fit ñu am ñu nekk ay sportif dañu war a produire ay góor gi si si si Dieng koñ bu nekk nga dafa benn panier basket bàyyee leen ay équipe nga xam ne ku sànni en en force de sànni de de de jouer ce basket là comme ni ma ko waxee sànni da ngay gën a a jubal sa loxo day gën a jub. Mm. comme l'asperkat yi da mën a basket. bu yàggee dinañ am ay basketteurs yoo xam ne vraiment ñun suñu jëmm mat na ko suñu kàttan mat na ko tàngaay bi nekk suñu dë suñ suñu dëkk bi ak dëgëraay bi fi nekk war nañ mën a produire ay basketteurs yoo xam ne dañuy mën a siiw fépp si si si monde bi waaye tamit athlétisme Koungheul am na sax benn athlète athlète boo xam ne tey day dem compétition nationale te loolu yëpp loolu yëpp dafay wane ne Koungheul ressource bi mu ngi fi waaye qualité yi aussi ak espace yi moom moo des loolu moo tax ñu dugg ci investir loolu moo tax stade bi am terrain basket war a am tamit piste boo xam ne dañ ciy dañ ciy dañ ciy dañ ciy daw. Hmm, sport bi am na yeneen karaté yi ñu fi yeneen yëpp ñu ngi fi te tamit ñu ngi leen di jàppale chaque année. waaw je solo. tënk tënk nga ci lu yàgg. taxawaay bi métti trop di wax mbokk rek ne euh, <coughs> li moo nekkoon présentation bi xam ne bi ñu seetee ne documentaire bi xam ne am na ay témoignages ñëpp si Yacine Camara lii bokk na ci li xam ne Mamadou Diouf ñëwoon na pour tënkal ñu ko mooy programme bi xam ne wala bilan bi xam ne Mayane toog ci les 13 ans ci département bi biir euh, mais am na ci mën a ñëw mais balaa ci ñëw dañuy continuer ak Abdou Ndaw mu teewal fi tey diaspora bi nekk Koungheulwaa tey déplacé wu ñëw Abdou ci gàtt lan la ñu mën a wax ci nga xam ne kaa wax lu bëri jigéen ñi merci beaucoup ñu ngi ñu ngi rafetlu bu baax jataay bi ah. je parle ci euh, ñaari casquette benn bi mooy euh, comme Koungheul waa de la diaspora mais surtout comme membre aussi de la cellule de communication du candidat Mayacine Camara. Mm-hmm. boobu sax lay gën a fësal. parce que effectivement ñun ñoo sàkk ci sunu ay engagement en tant que cellule de communication pour tey jàkkaarloog presse locale bi pour fësal li nga xamante ni. moom la fi candidat bi def dañu toll ci jamono campagne électorale donc naturellement ku wax campagne électorale wax bilan et je crois que mon frère euh, Kaaw Diouf vraiment euh, ci éloquence bu am solo faram fàcce na ko wane na ko xayma na li nga xamante ni moom la fi ma candidat ma Yacine Camara wax wala moom la fi def ci diggante bi mu fi toogee ci ñaari mandat yi passé Euh, c'est vrai que moom wax na ko mais man personnellement man Koungheul laa juddoo fii laa dëkk euh, xëy na teel naa fi génn dem jàngi après ma dem à l'immigration dem toog fa euh, mais su ma dellusiwaatee Koungheul dinaa xam ne effectivement Koungheul man bi ma fi bàyyi woon ak Koungheul bi ma fi fekk tey uutee na lool uutee na ci fànn yu bëree bari bari bari te ñëpp xam nañ ko d'abord ci wàllu infrastructure nga xam ne Euh, mooy li nga xamante ni moom mooy développer dëkk ka wax na ko wax na ci assainissement wax na ci éducation wax na ci santé wax na ci jeunesse sport mais wax na surtout ci culture culture nag man sama cër tey wala sama prise de parole waruma ko sax wu accès ci li nga xamante ni jot nañ ko réaliser mais dama bëgg rek euh, pointer le doigt ci wàllu culture parce que dafa bokk aussi ci samay métier euh, culture le président Léopold Sédar Senghor dafa doon wax naan que Euh, tout développement euh, dafay sukkandiku ci culture n'est-ce pas que la culture et au début et la fin de tout développement euh, culture boobu nag dafa am solo ba nga xamante ni kaaw daf ci wax loo xamante ni mooy Koungheul dafa am douze fukki ethnie ak ñaar loolu dañ ko war a fësal tey ci àdduna dafa may dëkk yoo xam ne dañu développé ñu xam leen parce que simplement dañu am benn festival culturel boo jëlee ville bu mel ni Montreux en Suisse wala nga jël benn ville bu mel ni Angoulême nga xam ne man personnellement def naa régi plusieurs années ci comme stage ci festival boobu à Angoulême mu nekk ay dëkk yoo xamante ni ci àdduna tey dañu développé ñëpp xam leen ci àdduna parce que simplement ils ont un festival man ci festival boobu dama bëgg euh, dama ci waxtaan ak le maire mu ne ma Abdou loolu dañ koy intégré carrément ci programme bi mooy que d'ici quelques années on va commencer à développer le festival de mu nekk 72 heures yoo xamante ni Koungheul sera un hub culturel maanaam ay groupe dinañ jugee extérieur ay groupe tubaab dinañ ñëw pour rencontrer no jeunes artist fii def ak ñoom ay workshop def ak ñoom ay création yoo xamante dina leen permettre ñoom ñu yokk seen xarañte ci wàllu musique mais dina permettre aussi suñ artistes locaux yi kiy pentre kiy cuub ñu mun a exposer li nga xamante ni moom la ñuy liggéey pour mun ko jaay mu dem à l'extérieur ku fiy jaay cuub xëy na junni boo ko munee jaay tubaab nga ko jaay cinquante mille wala cent mille. donc volet culturel boobu bëgg nañ daal à partir de ci biir programme bi ci biir mandature bii di ñëw ñu commencé développer la grand festival de Koungheul mais dafa am loo xam ne dafa am lu ñuy les programmes transmandature. c' est un programme transmandature parce que du programme boo xamante ni Mayacine Camara ci ci mandaam rek lay jaa lay lay nekk bu fi jugee sax moom ëllëg keneen ku fi ñëw da koy continuer ko perpétuer mu nekk pendant cinquante ans cent ans. un festival boo xamante ni chaque année bu ñëwee Koungheul dinañ ko mën a promouvoir parce que àdduna yëpp mun a ñëw pendant 72 heures yooyu fii fii ci Koungheul. il faut qu'on aide Mayacine pour qu'il nous aide aide que mooy d'abord dimbale ko ci li muy demandé waat nii mooy mandat bi muy demandé waat ñu jox ko ko mu mun a àggali li nga xamante ni moom la naal li nga xamante ni euh, naal na ko ba pare pour que ëllëg mu mun a forger aussi ay jeunes leaders. pour que ñu mun a jël ñoom aussi seen responsabilité continuer li nga xamante ni moom mooy liggéey bi. mais Mayacine waruloon am ci jamonoom ci jamonoom da laa wax waruloon am mu ne damaa bëgg ni taxaw ne damaa bëgg cest à bu ne damaa bëgg ñëpp dañu war a ànd ak moom ne ko grand tant que yaa ngi bëgg ñu ngi ànd ak yow parce que yow ànd ak yow suñu njariñ la njariñu Koungheul la. voilà ce nu nous faut c'est un homme loo xam ne gëmul lu mooy Koungheul du waxtaanee lu mooy Koungheul ñu waxtaan ma ne moom dakk ak sama kër plusieurs fois mooy wax yéene yiite yi mu am pour Koungheul. loolu doy ko mu bàyyi jël billet d'avion ñoo fekk ma Europe bi ma nekk nekk ak man pendant quatre jours yoo xamante ni il na ma parle que de Koungheul et de là où il veut amane euh, fi mu bugg yóbbu Koungheul dimanche la ñuy dem ci ay élection na nit ñi am dal rek am mat rek te xam ne ñun ñoo bokk Koungheul Matar dëkk bi ñoo bokk ci maternité yu ñu juddoo ñoo bokk ci école yu ñu jàngee ñoo bokk ci mbedd yu ñu foyee sunu ay waajur ñoo bokk ay armée lu ñuy tëddee xëy na ñun ñoo bokk ay armée koo fi gaañ wala koo fi wax lu ñaaw yaa koy dem faji wala yaay dajeeg moom ëllëg sëgg kon nañ leen ko rafetal moytu di jàngal nit ñi joxum xaalis na leen noonu la ñuy politiquer c'est important parce que waruñu nit ñi dañ leen war a bàyyi seen dignité nit boo roccee ci moom dignité nit boo roccee ci moom dignité Matar deseetuloo ko dara dignité mooy doomu aadama ma Mayacine loolu laa gis ci moom dafa lay jox sa dignité jox la sa cër ba da ngay da ngay dafa mel ni dafa sax ruus nit ñi wala dafa mel ni dafa ragal nit ñi parce que simplement xam na ne doomu aadama dañ ko war a cëral dañ ko war a dañ ko war a jox dignité mais fekk nit mu toog nga di ko jaay ne ko non dama lay jox junni parce que jàpp nga ne dafa xiif wala jàpp nga ne moom kat ay waajuram amul doole yow kat yaa ko tane di ko wan loolu di ko yëkkati ay 5000 ak 10 000 francs ko jox pour yaakaar ci moom benn suffrage loolu rafetul même su fekkee votal na la rafetul yaa ngi rocc ci moom li ëpp solo ci moom moom mooy dignité boobu moom moom mooy dignité boobu donc nañu moytu na nañu moytu lu mel noonu di ñaan yàlla nit ñi rek ñu dem ci dal li ci des bareetul fii la combat est déjà gagné. c'est clair parce que ñun daf lañu ay sondage ay politiciens lañu bi ñu wàcc ci dëkk ba léegi ñu ngi def ay sondage tooguñu nelawuñu nit ñi xàmmewuñu dañuy def suñu masque di dugg ci kër yi di laaj man sur un échantillon de vingt trente personnes dem wax naa ko faama naa ko faama li ñu nekk di def nii sondage la parce que su ma doxee ci vingt su ma taxawee ci vingt places. ku ci nekk ma déglu la dinaa xam ci échantillon vingt personnes yi si les dix neuf sont favorables à Mayacine ma dem feneen yeneen dix neuf favorables à Mayacine mais à ce rythme-là kenn mënuñoo dab. kenn mënuñoo dab mais nag nañu yaakaar bu ñu xalaat ne élection nañ ko fii sàcc mënatu fa sàcc le code conscientiel bi daf la code électoral bi ko changé Mamadou Diop Decroix bi doon représente ànd jëf booba ci code boobu en 92 ci laa doon jàng man tàppe j'étais son assistant bu demee indi brouillon yi maa ko doon tàppel. donc xam naa code boobu bu baax a baax li ci nit ñi wax sàcc ay élection mënu fi transfert da ngay électeur mën naa am yenu ji waa Gént Pathé indi dem yenu ji waa Daaru indi ti loolu amul njariñ jaru ko jaru ko yow ñi nga am te ñu dëkk ci dëkk bi te juddoo ci dëkk bi amay carte d'identité ci dëkk bi suñ la gëmee nañ la votal suñ la gëmul mais gëmal yàlla ne des nga yow xale nga am nga marge encore tu nag am nga nag méritu am nañ mérite ñoom ñëpp am nañ mérite am nañu méritu jéem pour wane ne bëgg nañ Koungheul te loolu lañ gëm ne gëm nañ ne ñoom gëm nañ Koungheul bëgg nañ Koungheul am nañu méritu jéem waaye nag tollooguñu ci gis nañ ku leen mën gis nañ ku leen ëpp xam-xam nañu ànd ñëw topp ci ginnaawam ñu tegandoor affaire yi fexe ba Koungheul fi ak ay at dootul am beneen candidat heure bu ci doyalee moom Mayacine heure bu jàppee ne doyal na wala mu bëgg dem ci beneen niveau mu bàyyee ñu ko jox ñu ko ñu jox ko keneen moom mu dem moom moom mu dem ci beneen niveau jërëjëf merci am na ñoo xam ne tey ñi ngi laajte ne loolu est-ce que loolu mën nekk la parce que am na loo xam ne foofu la mën a yem keneen tim war a ñëw pour continuer leen ak leneen xam naa loolu dinañ ne ñëw nga ci surtout nga nekk euh, tey ñu wane yaay bu CDS bu euh, commune bu bu di santé centre bi ci loo xam ne mairie bi war na ko fa def man na dégguñ nga wax sa biir wax muy ay médicaments yoo xam ne tey jot nañu ay deux dotations yoo xam ne agsiwul ñëw ñëwoo ci loolu lan moo tax lan lenteur boobu mu am beneen côté bi gis nañ ne c'est vrai que am na ay liggéey yu bëri su sumb nañ ko fii nii ci biir wax bi bëgg ngeen ko wax askan bi a ngi koy bi day day euh, yooyu yooyu loolu moo tax muy des loolu tamit nit ñi bëgg nañ ci xam stade bi problème loolu ci nit ñi nit ñi bëri ñu ngi koy laajte moment bi wax nga ne projeté dina tàkk semaine bii nii pour mbir mi ñëw lan moo tax chaque fois ñu te ci problème mairie de Koungheul avec de lenteur yéen cellule com bi li ngeen bëggoon mooy wane liggéeyu Maya ci 13 ans yi am na lu am solo lu mu fi def mais am na loo xam ne def na askan bi nag loolu la wax lépp mëntu mat mais am na loo xam ne waroon ngeen ko mën a réaliser ñaari question yooyu rek boo ci ti wax le pourquoi mu bëgg ñu forcer Maya Sine kenn dafa war a ñëw ba doyal pour keneen war a mën a ñëw bon man de lenn rek moo ma jaaxal li tax nga bëgg grand bi rek mais je suis très bien je suis très bien placé pour répondre sur ces questions voilà mais dinaa ñëw si boobu si boobu sax laay njëkkee parce que moom la njëkk a moom après bu amee beneen beneen argument mu do mu do mu dolli la li tax ñu war ko bàyyi mu def troisième mandat man gëmu ma ne Mayacine mu ngi si troisième mu ngi si deuxième mandat wam ndax dañuy ñëw 2009 ñu nekk opposition jël mairie bi ak ba ay groupe de jeunes engagés déterminés xamoon nañ li fi nekkoon. ñëpp xam nañ ko. duñ ci ñëw parce que ñu ay kilifa ñoo ko yoroon ñu baax lañu woon mais ci wàllu xereñ ci jamono ni muy doxee dañu gëmoon ne affaire bi dépassé na leen il faut il nous faut d'autres équipes plus engagées plus modernes mais aussi plus déterminées comprendre nga bu baax moo taxoon ñu jël ko loolu nag am lu mu juróon fekk réew mi yor benn kilifa goo xam ne amu ci woon amuñu woon benn problème ak moom mais gisoon suñu ay gis-gis politique bokkuloon muy Ablaye Wade moom ni mu doon gisee mooy. Koungheul le maire dafa war dem ànd moom liggéey pour mu mun ko dimbale mu ne nag moom du jël Koungheul di ko jaay parce que bi muy jël Koungheul gëmul woon politique bu Ablaye Wade donc du jël Koungheul ba pare di leen di ko jaay day sàmm ngorom sàmm di dignitéem mais mu ñafe ba def li muy def si dëkk bi te du jaay ngorom donc loolu mooy suñu première mandat pendant tout ce mandat là mënuñu def benn effort bu baax parce que tout simplement fekkuñ dëkk bi am plan de communal bu baax fekk nañ fi ay bor ADM fekk fi ay bor courant fekk fi ay bor seen euh, euh, euh, téléphone fekk fi ay bor ndox fekk fi ndox mu mag fekk fi ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne on était à moyen l'infini <laughs> très sincèrement Koungheul ñi fi nekkoon na amuñu benn problème ak ñoom parce que ku nekk sa sa sa tolluwaay rek nga mun a def. donc Mayacine bi muy jël dëkk bi fekk ko zéro moyen l'infini la ko fekk avec tas de difficultés ba pare pour mu doxal ñu koy koñe ci nguur gi. mu ne du jaay ngorom loolu mooy suñu premier mandat donc pour man premier mandat bi loolu la jur mu dem ànd ak Macky Sall tout simplement parce que gëm na ne kii bu ñëwee ak li muy prôné engagement yi mu jël li muy communiqué dina mun a changer li fi xew dina mun a méngoo ak moom euh, xalaat ak gis-gis loolu mooy suñu premier mandat donc suñu premier mandat moom c'était pour indi dëkk bi zéro boo commencé zéro nag sa premier mandat sañ nga am deux mandats et puis may xam ne actuellement ñun dañu war a bàyyi li ñuy focaliser wu si premier mandat deuxième mandat troisième mandat si collectivité locale yi parce que bu fekkente ni am nañ ay candidats yu mate li ñu doon je n'ai rien contre les autres bu fekkee am na candidat yoo xam ne bokk nañ ak ñoom gis-gis Mayacine du du poser candidature am. Mm-hmm. da lañ koy jox mais mënuloo jël sa dëkk jëlee ko zéro jëlee ko avant les fini indi ko zéro teg ay salon ba mu baax nga gis ay nit ñoo xam ne leer na ni ñii buñ dëkk jëlee dëkk bi. amuñ les matériels qu'il faut peut-être am na am nañ si biir ñoo xam ne xëy na bu ñu jëloon dëkk bi am nañ matériels yi mais politiquement amuñ base boo xam ne dinañ gagné te ñu ñëw ànd ak ànd ak Mayacine donc kii gagné élection yi par exemple amul équipe équipe bu mu mën a àndal ba ba yeggali liggéey bi Mayacine def si dëkk bi tam sonn ci loolu amul moom xerañte wala am njàng mbala jikko wala melokaan boo xam ne am nañ yaakaar ci moom ba mu mën a continuer li fi Mayacine def comme affaire bi continuité la loolu bu fekkee da nga bëgg sa dëkk gëm sa dëkk à risque risques et périls da nga war revenir jël sa courage en main loolu moo tax Mayacine ñëwaat mais si c'était pas ça dina bàyyi parce que amoon na possibilité dem jël conseil départemental mais Koungheul gii la juddoo fii la dëkk mu def liggéey boo xam daf ci sonn lool du bàyyi muy dem ci ay loxo yoo xam ne dañuy jaay dëkk bi dañuy wax te yàlla tax lu ne def nañ ko pour loolu sotti sa beneen question bi moo doon lan

tàkk na benn te dinaa ñëw autrement dina dinaa la répondre autrement sur ça euh, mairie li mën mooy def engagement am projet am plan def am xaalis bi fu mu nekk ci lo loger ko trésor ci benn euh, compte benn service bu méngoo ak investissement boobu mu def engagement bu defee engagement dañuy def li ñuy wax appelle d'offre entreprise gagné ko entreprise boobu bu xasee ba gagné marché bi moom ak service yi si compétent la mais maire du ay du ingénieur du am bàyyi ma terminer rek bàyyi ma bàyyi ma terminer dama lay wax lu leer ci stade bi su su stade bi yéexee maire yi da koy da ci am responsable parce que mooy mair ci commune am la nekk mais responsable bi dëgg entrepreneur bi la ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ko war a fay entrepreneur nag su waree liggéey war a fay war a fay ko 10 millions jot avance de démarrage 5 millions di xaar deuxième décaissement jot ko parce que tout simplement trésor viré luñ ko wala ñi nga am ne ñooy partenaires yi ko war yi ko war a fay fayuñ ko wala mu am ci liggéey bi mu liggéey lu ci baaxul ñu ne ko na ko changé lenteur yooyu ñun mairie mënuñ ko gérer parce que bu fekkee ne da nga ñëw am engagement yor cahier charge ñu ne la defal kii defal grille de protection yu mel nii hmm. nga dem nga dem ak sa bureau de contrôle Matar nga dem ak sa de contrôle si nga dem ak sa bureau de contrôle dama bëgg nga comprendre li may wax nii parce que c'est aussi important pour man nga dem ak sa bureau de contrôle defar grille de protection yoo xam ne répondre aux normes bu contrôleur bi ñëwee ànd ak mairie bi dañ koy dindi te loolu bu ñu ko dindee dafay impacter ci délai délai d'exécution bi mhm. mais stade bi mun nañ comprendre loolu et ça arrivé plusieurs fois foyer bi xanaa demoo ci foyer bi benn beneen bi mooy dafa marché am délai délai bi pees waa weesoogul soo bëggee moo wax ma wax délai délai délai bi ñu ko war a livrer kañ la donc man boo ma nee foyer bi dafa yéex marché bi dafa yéex day daf may jàpp. amuñu benn marché boo xamante ni actuellement nekkul en bonne voie ça n'existe pas problème yi si am nag problème entrepreneur la problème décaissement la durée la te yooyu yëpp ñu ngi seen délai d'exécution normal je fii nag tout le monde yëpp à part stade bi nga xam ne le maire a fait ses moyens propres. yow yaa wax période période période période campagne la c'est très normal parce que période bii waxkat yi ñu ngi wër di wax ñëpp ñu ngi wër di wax dañuy tëj seen gémmiñ te loolu nag ndimbalu yàlla la tey kenn dootul waxat yi parce que lépp lu ñu doon wax mooy sport bi stade bi côté bu nekk lamp yaa ngi fay tàkk lu des léegi stade bi la woon stade bi tàkk na lu luy problème bi loolu beneen affaire la nañ bàyyi problème stade bi te ñu dem li ma li ma li ma contré woon Ablaye Wade bokkoon na ci wàllu wàllu troisième mandat te boo lëggee ci réew mi keneen ko ko fi wax ci neneen beneen façon aussi man ma taxaw wax ci la li ma ci xalaat mais fii démocratie bi wala loi bi moo ko permettre moo tax mu am sañ-sañu demander troisième mandat boobu troisième mandat boobu nag du moom moo ko demander boppam moom jugul fëgg dënnam xam nga il y dafa bokk ci benn parti bokk ci benn coalition bu ñu woowee bonn Benno Bokk Yaakaar nekk ci di ci liggéey moom ak yeneen Kounguelwaa di ay naataangoom gënu leen ci lenn gënu leen ci juddu gënu leen ci lenn mais ka fa nekk ki jiite seen parti wala ki jiite seen coalition moo toog ba xelaat jàpp ne gëm ni Koungheul waa ji ni calculé wul am na benn wala ñaar mais waa ji moo mun a continuer affaire bi waa ji moo mun a continuer liggéeyu Koungheul mun leen ay waa ji la xëy na Mayacine ku xam Mayacine ci yaram humilité su président yaakaaroon ne Makhtar Sarr mi la ba joxoñ Makhtar Sarr Mayacine dina jël li mu am ñëw topp ci ginnaaw Makhtar Sarr mais président le fait que d' abord président choisir Mayacine c' est pas fortuit c' est pas gratuit cela montre encore une fois de plus dimension de la dimension de l'homme n'est-ce pas parce que dañu toll ci dëkk boo xamante ni bëri na ay jeunes yu émergé ci wàllu politique ñoom ñëpp comme wax naa la ko am nañu xam-xam ñu ngi leen di saluer ñoom ñëpp ñoom ñëpp am nañu mérite ñu ngi koy saluer ñoom ñëpp mais pourquoi et le pourquoi président sax question boobu la nit ñi war a posé woo mais il faut que Matar foofu ñu teg fa tànk gis nga nit da ngay am euh, suma maam Saadar daf may wax ne ma góor da ngay ñeme li ngay def soo bokkee ci benn parti politique ne man fii laa bokk ñëpp xam ko nga wane ne fii laa bokk. président ba wala ki jiite parti boobu ne la dam leen nga ànd ak diw sàngam damaa jàpp ne da ngaa war a jóg dama ànd ak diw sàngam soo ko mënul a daf da ngay ñemee taxaw ne dafuma ko mais boo ne dafuma ko da nga koy wane ci acte yi ngay posé yëpp du ma teg photo maak président pour wane ne président daf ma dama am lu may jéem a dil ak moom euh, du ma jéem a wax ci au nom du président parce que président nag joxu la waxu la yónniwu la yóbbantewu la téye déggu la au contraire ma nga la guuxal la mu la guuxal parce que wax dëgg di la xaar nag parce que ku xam Macky la xam ne am na fulla ak fayda ba nga xamante ni su ne lii la nga non seulement damoo dafi loolu mais dam di dafi leneen def ay manipulation ci leneen boo légee lu la ci fekk yow la mais yéenewuñ ko ci dara fekk ko ci parce que bu ñu sañoon mu nekk ci ëllëg ci ñiy diriger waxuma la Koungheul mais ñiy diriger àdduna parce que ça sera à l'honneur Koungheul mais fu yaawu jaal naan yaawu jaal naan damaa bëgg nekk roi des arènes waaw mais ani ani Balla Gaye am déet donc voilà loolu foofu fi may waxee naan nañu bàyyi nañ ko gëm nañ ko fi bàyyi mu dawal loolu rek la foofu foofu laa ko doon waxee merci. am yi après gars yi di commenté askan bi mën a comme ndax li ngeen wax am na wala amul je crois dégg nañ euh, nii mu nekk loo xam ne mu doog am ci histoire loolu ci politique ren ne politique bi changé parce que cellule commune yi ñu gis ko ci loolu loolu non cellule yi ñu ngi liggéey c'est au pluriel da nga naan cellule bi mi ngi liggéey di leen wax ne affaire bi nii la rek nii rek la mbir daal soo ko gëmee danga nga ciy nekk man personnellement je suis trop trop trop trop fier de mes jeunes frères ci liggéey bu am solo bi ñu am bi bi ñu def. merci beaucoup mbokk yi lii la ñu fii nii tey ci euh, direct bi xam ne ubbee ci face à face bi ñu jàkkaarloog ko ci programme bi Camara bi ñu paree amoon nañ ay questions yoo xam ne ci askan bi ko pour jëm ci ñoom Mamadou Diouf am na lu mu ci mais kii xam ne tey moo fi teewal silicom bi di Abdou Ndaw kenn du ko présenté ci Sénégal mais le fait que mu ko Italie ñëw toog fii rek dina am lu mu liggéey nee am lu mu bëgg fësal le pourquoi Mayacine war a nekk am troisième mandat tu nekkoon mu nekkoon question bi je am ngeen réponse bi tey te loolu loolu ñëpp di laajte silicom bi jox nañu ko nii lañ koy defee nag ñun xibaar Bambacounda la pour tout le monde quelques jours moo def ci élection yi mais kër gi képp ku xam ne rek am nga ci loo xam ne war ngaa wax askan bi jot si rek ñu ne pré déplacé wu fi nga nekk ñu ñëw jël la ko te ñii lañ nekk loon te liñ fi dégg am na solo programme seulement la bilan la ak kàddu yu rafet yu xam ne woote jàmm ci élection yi jëm muy dimanche mu jeex tàkk ñun ñëpp ku nekk dellu si li nga nekkoon kon donc nañ xam ne Koungheul ñoo ko bokk te mënuñ ko xar ñaar kon donc ku nekk nañ ko rafetal ñu ngi leen gërëm baax di leen sant ak yeneen i fii ci biir kër gi jërë ngeen jëf